ban moo si ce choix que mu continuer à présider aux destinées du parti. je pense qu'il a encore un capital sympathie dans le pays. Mm-hmm. je pense qu'il a encore euh, beaucoup d'expérience à la fois politique mais aussi expérience dans la gestion des affaires de l'État et le président Macky Sall que je connais il est encore tout à fait jeune il n'est pas vieux et je sais que le travail lui manque donc voilà s'il reste en politique da nga bokk ci ñu jàpp il peut envisager un retour au pouvoir. moi j'ai deux hypothèses politiques. Ah, sur laquelle je ñaari hypothèse politique la am yoo xam ne ci laay ah. liggéey. benn bi mooy su fekkente ne moom dafa toog en politique c'est notre leader respecte choix yi muy décider ci lañ koy topp su fekkente ne nag bëggatul dem politique dafa considéré comme ni ma doon waxee Senghor Abdou Diouf su boobaa tamit suñ ko xamalee ci anam yoo xamante ne moom moo koy choisir. ñu ngi organisé au niveau de la paire. mais mais mais nañ nañ nañ def nañ éviter rek lenn. Hmm. mu ne kii mooy seen njiit loolu baaxul ci politique. ah parce que actuellement da ngay bàyyi euh, nit ñi ci boppam. ñu déterminer pourquoi pas suñu parti yi du ñu loolu sax. mais mais mais aller vers des primaires. mais justement. des primaires euh, ouvertes su fekkee ni moom présenté wul laa wax. aujourd'hui mais su bëggee ñëwaat nag c'est le leader. président Macky Sall waaye dafa mel ni ki nga xam ne moom mooy dépositaire de sa confiance dafa mel ni Amadou Mame la. moom la ñu jiital ci yu bari maa ngi dégg ay grognement ay grincement de dents euh, am na ñoo xam ne euh, bu ko président dëggalee euh, envisagé nañu sax quitter parti bi. non man sax président Macky Sall ma ko xamee ak expérience politique bi mu am ak intelligence stratégique bi mu am du ñëw rek ne nommé naa nommé naa kii dirigeant du parti non du ko def. Hmm. pour man du demee noonu pour man di mu mën demee bon maintenant quand il s'agit d'administrer un parti. choisir un administrateur qui convoque les réunions, qui coordonne, etc., qui gère, qui est une sorte d'interface. Tantôt c'est Amourou Mamdiop, tantôt c'est Mahmoud Saleh qui va être nommé coordonnateur du, parti. Mahmoud Saleh serait un bon choix d'ailleurs. Mahmoud Saleh Oui, parce que moi, il n'a pas d'agenda politique. Mahmoud, c'est un facilitateur, c'est un coordonnateur, c'est un organisateur. Mahmoud, euh, administratif. Mais maintenant, quand foofu moi mon avis c'est que le président doit ouvrir la compétition